aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim kon ñëw ci sun bind tey ñu ngi woon ci laaj ci mbirum naafila kon dañuy àggale foofu sëñ bi wax ni ñaari raakaay fajar mooy ñaari raakaay yi ngay julli njëkk ngay julli suba ñaari raakaay yooyu bu dee ci fiqu Malik maa bu dee ci ngiru Malik dañuy jàpp ne lu nu xemmeem la raxiiba la raxiiba lu nu xemmeem mooy loo xam ne yonante bi wax na wax na ca luy tax ñu xemmeem ko di ko def ngir bëgg am loola ndax yonante bi alayhi salaam daa ni ñaar raakaay fajar ñoo gën àddunaak li ci biiram marakatal fajri xayrun ah, mina dunya wa ma fiha loolu moo tax ñu xeemeem ko waaye kon àggul ci sunna waaye bu dee ci maçon bu malik ci malik dana jàpp ne lu nu la lan moo sun sunna ak lu nu xeemeem dañuy wax ne na mooy loo xam yonante bi da ko saxaloon di ko def musu koo bàyyi banim faatoo te da daan ko feeñal ma daan ko def nit ñëpp di ko gis lu mel ni julli ci xeet yi ba wiitar bu dee raxey ba nag wala luñ xeemeem mooy loo xam ne daaw ko saxal doonte li ëpp daan na ko def waaye nag léeg-léeg du ko def kon sunna mooy lum saxal continuer di ko def ba nim faatu mus koo bàyyi tey daan na ko feeñal lu ñu xeemeem nag mooy loo xam ne daan na ko def waaye nag du da ce saxoon léegi-léegi du ko léegi-léegi mu toog ab diir du ko def donte nag jamono yim koy def moo ëpp lim lim lim lim ko def mu teg ci lu jëm ci julli yoor yoor julli yoor yoor yoor yoor mooy bu jant bi fenkee ba dox ab diir ba tisbaar diggante boobu juli ni julli eh, moote julli yoor yoor julli yoor yoor yi bokk na ci nga xam ne dañ koo sopp maanaam luñ sopp mooy loon def ki moo gën ñàkk def ki moom mën nga koo julli eh, ñaari rakka mën nga koo julli juróom benn rakka man nga koo julli juróom-ñetti rakka mooy huit kon julli yoor yoor moom bu la neexee mën ngaa julli deux rakka pare ci bu la neexee mën ngaa def six bu la neexee mën ngaa def huit mooy juróom-ñett wax nag julli yoor yoor ba tey bu dee ci ngirum Malik dañuy sib nga def ko lu ëpp juróom-ñetti rakka mooy huit xam nit ki lu sawar sawar sawar dañ wax ne sañu koo weesale juróom-ñetti rakka mën ngaa julli ñaar bul neexee mën ngaa julli juróom-benn mën juróom-ñett waaye juróom-ñett moom doo ko weesu maanaam misaal kenn mënut a maanaam ko def lu me lu fukki rakka euh, ak ñaar baa yooyu juróom yi di doo ko weesu bu dee ci ngiru Maalik dañuy sib nga julli yoor yoor lëpp juróom-ñetti rakka mu teg ci ak leeral ci waxtu yi ngay naafila ndax nga biral wala nga yàllu ban moo ci moo def ci tënk bu gàtt bu leer gépp naafila goo xam ne ci guddi gi lay amee man bépp naafila boo xam ne guddi nga koy def booy naafila guddi nga biral moo gën guddi biral moo gën mooy wax ci kaw li ngay tare nga kay wax ci kaw bu dee bëccëg la naafila bëccëg nga wax ko ci suuf moo gën kon boo bëggee xam ndax naafila gi ma wax ko ci kaw am wax ci suuf ban moo ci gën dangay xoole waxtu wi ngay naafila bu dee guddi la waxtu guddi booy naafila ngay wax ci kaw moo gën bu dee bëccëg la ngay wax ci suuf moo gën mu teg ci ne buñ jullee suba ba noppi la commencé foo ba keroog jant bi di génn danañ sib ku cee wax wax ju mën a ñàkk rawatina nag ku fay nelaw wala mu cee nekk ci lu njariñ am leen bëgg nit ki bu jullee suba eh, la commencé foofu ba keroog jant bi di génn mu toog yor kurusam wala yor alxuraanam di jàng maanaam daal muy tudd yàlla daal boobu muy yàlla kon di fa wax wala di ca nelaw loolu dañ koo sib te sax am na addis bu wax ni ku julli suba ci mbooloo toog di tudd yàlla di tudd yàlla ba keroog jant bi di fenk ba keroog jant bi di fenk nga daal di julli ñaari rakkaay naafila boobaa am nga yoolub ko aj ak yoolub ko umra am nga yoolub aj ak umra addis ba bam waxee loolu ba noppi da cee taammatayni taammatayni maanaam yool aj ak umra bu mat bu mat bu mat waaw ko def loolu am nga yoolub aj ak yu mat sëkk boo defee jëmi tudd yàlla nag eh, naa nekk jàng alxuraan mën naa nekk sikkar mooy laa ilaha illa ka la ci aju mën naa nekk aw werd mën nekk jàng xasida mën naa lépp luy zikru rek day dugg ci tudd yàlla.